tout le monde, chers invités, chers journalistes, je voudrais avant tout remercier le président Tcherno Alsan Sall et l'ensemble des membres de la République des valeurs avec qui j'ai travaillé tout au long de ces dernières années. Pour rappel, je suis membre fondateur de la République des valeurs et je suis conseiller municipal à la maire de Thiès-Nord. Je voudrais le remercier solennellement pour ce parcours exceptionnel que nous avons fait pendant toutes ces années. Ce soir, je vous annonce ma démission au sein de la République des valeurs. Après plusieurs années d'accompagnage, le moment est venu de passer à de nouvelles ambitions. Sur ce, je vous annonce que je vais rejoindre mon ami et frère Massamba Diop, qui fut aussi mon camarade au sein de ce parti. Ce choix est basé sur un compagnonnage basé sur la fidélité, la reconnaissance, mais surtout sa proximité avec la population thiessoise. Je voudrais aussi remercier tout ceux qui m'ont soutenu durant toutes ces années. Et je vous appelle encore une fois pour ces nouvelles ambitions que nous avons à travailler encore pour la population thiessoise. Nous vous donnons, nous vous rendez-vous dans les prochains jours pour d'autres sorte incha allah je vous remercie. donc man maa ngi tudd Mamadou Loum nekkoon responsable politique bu République des Valeurs mais nekk aussi conseil municipal ci mairie bu Thiès Nord ñu ngi nuyu ñëpp ñu fi teew. nuyu it journaliste yi nga xam ne def nañ déplacement teew fi fi ñuy tàmbalee mooy dañuy remercier sunu frère le président Thierno Alassane la ak bépp membre boo xamante ni yaa ngi nekk République des valeur ñi nga xamante ni depuis ay ati at ñu ngi ànd di liggéey ñu leen di fàttali ni parti boobu kat membre fondateur lan fa bien avant ñu koy créer ñu ngi àndoon ak ñoom di liggéey ba ni taxawalee parti bi ñu leen di remercier ci ànd bu rafet bi nu ànd boobu ba léegi. tey nag dama leen fee woo pour di leen yëgal ni bis nikk tey dakkal naa samay activité politique ci république des valeurs bi nga xam te ne nekkoon ndax am na yeneen ambition politique ci kaw ambition yooyu sax da leen di yëgal ni dañuy rejoindre sunu xarit sunu frère monsieur Massamba Diop mi nga xamante ni bokkoon na nekk foofu ci biir parti boobu choix boobu nag li ko waral mooy tey xaritoo bu dëggu waaye tey reconnaissance bu mu am mais surtout ànd bu ànd mu jigee population bi ak liggéey bu rafet bi nga xam te ne mu ngi koy defar mu ngi koy def fii ci population bu Thiès tey su loolu moo motiver suñu choix ñu ànd ak moom continuer liggéey boobu nga xam te ne ñu ngi ko doon def ñu ngi remercier nag ñëpp ñoo xamante ni tey ñu ngi ñu doon jàppale depuis le début saa yu leen woowee ñu ñëw wuyu si ñu fu ñuy dem aussi ànd ak ñoom yóbbaale leen. di leen jox di jaaje ci bis yii di ñëw ci yeneen activités yoo xam bëgg nañ koo def fii ci biir cees incha allah.